population bi actuellement nek nañ ci njàqare population bi jaxasso nañu population bi commencé ñu génn seen i kër ndax jaxlé ñun nak ñu né lolu duñu tok diko sétane état bi lako ko war na def ca anam ba nga xamé mom lako wara défé parce que li nit ñi di laaj seen droit la état bi dafa wara jël tenir en compte problème inondation commune Diamaguène Sicap parce que population bi sonn nañu population bi jaxlé nañ li depuis 2005 population Diamaguène Sicap ñu ci bir ndox mi dafa jot nak tay ñu dafa ay canalisation comme nañ ko defee ginaaw ray comme nañ ko defee yëmbal sud ak yëmbal nord parce que Diamaguène Sicap Mbao dafa bokku ci Sénégal dama ne état bi dafa am lo xamné tay vraiment mi ngi wa waa Diamaguène Sicap Mbao te li nga xamné moy suñu problème bu ñu waxee mairie bi né mom miru inondation du prérogative am mais mairie démembrement état la dafa am part de responsabilité pour and ak état pour démolir ko ci inondation mais dañuy bay ba nit ñi nek ci ay jafé Nous ñuy nous wër di sonal nit ñi wara jël le plus rapidement ñu devons ndox mi fi nek ba solution définitive parce que tay ay solution provisoire dañ ci bu pompage pompage jusqu'à quand